wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gërëm Cheikh Ahmadou Bamba te yeesu suñu jaayante ci moom ñu ngi nuyu mbokki julli di ñuy seetaan ñëpp ak mbokki taalibe yëpp di yëkkate ay kàddu rek ñuy kàddu yu gàtt yoo xam ne ci turu Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadir ndax barab bii responsabilité yi ak li ci aju lépp moom la ko sëñ bi teg ci loxoom dénk ko ko mu tegaat ko ci sunub loxo ñu di ko saytu ci biir saytu googu nag dund nañ ci ba nga xam ne gis nañ yoo xam ni aajo woo na ko lool ñu waxtaanoon ci ak waatu Touba ci kanam mu doonoon yitte yoo xam ni ndax ku ne xam ne barab bi ni mu bindee ndax benn bâtiment bii rek quarante chambre la ak huit suite ak euh, quatre salon yu mag kon xam nañ ne loolu lu ko waree a occupé ci ay dara ak rido ak yeneen yi ci ay moquette lu bare bare lay doon kon loolu boo noppee dana am lu mu laaj ndax wax barab la boo xam ne tamit semaine bu ne mbooloo mu bari ñoo fiy dugg si ndax képp ku jëm si Tuubaa bu agsee mooy sa dalukaay ndax bi ko sëñ bi defar loolu ko tax a jóg màggal yi xew ci dëkk bi tamit gan ñi bari fi lañ leen di dalal si gan yi sëñ bi amit fi lañ leen di màggalu Tuubaa tamit chef religieux yëpp fi lañ leen di dalal kon barab bu am solo la ci yoonu muri bi bagage yooyu nag ñu yitte woon ko lool ñu ko waxee waa Tuubaa ci kanam ñu def ci yitte ju mat sëkk nag yoo xam ni ju sedd xol la ndax biñ leen ko waxee rek dañ ko def seen yitte bopp taxaw ci taxawaay boo xam ne wax dëgg yàlla ñun kawe na suñu njort lool ndax ni ñu ko doon séentoo ak ni mu demee wax dëgg yàlla wute ndax biñ waxee nañ bind liñ soxla ñun machine bu mag ak bu ndaw lañ bindoon sax noonu ci suñu bind waaye bi ñuy andil dañuy andil ñaar yu mag kon loolu wane na ne yéene la matériel bi ci des it moo xam machine aspirateur yi nga xam moom la ñu def ngir moquette yi ak bale raquette yi ak bale nylon yi lu ci nekk it andi nañ ci lim bu am solo ñuy jaajëfal waa Touba ca kanam di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal it nag ci jëmmi ngir jëmmi sëñ Touba mi tax ñuy def ak barab bii tax ñuy def yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal sëriñ Touba te am ci lu seen njort di sant ñëpp tàmbalee ko ci kilifa ga muy sëriñ Abibu sëriñ Fàllu jaar ca sëriñ Abdul Ahad ak mbooleem kilifa yi ci nekk yëpp ba wàcc ci président ak ñi nga xam ne ñoo yor commission yi nekk ci biir Touba ci kanam yëpp di leen xamal ne daal yitte ju ñu amoon ñun waa Touba kanam saafaraal nañ ñu ko ci saafara win woo xam ni wax dëgg yàlla seet nu suñu xol lool fekkoon na tamit bi ñu xamee ne laaj nañ ñu liste si bañ jox leen ko gaaralu nañ ko sëñ Bas mi nga xam ne moo ñu fi teg mu ànd ak man bañ dem ba ci sëñ bi ñu wax ko ko wax dëgg yàlla booba tamit am na kàddu ku ma waxoon wax naa ko sëñ Abdou Lahad ndax dama ko wax a naa ñu ne ah, war a si loon a tegati dara ndax liñ gàddu bari na te xam naa ne ñu ma yërëm lañ te fu nekk seen loxo ma nga fa loolu dañ maa waroon a bàyyi ma def ko ma ne ko seen yéene de mel na ëpp na loolu sax ba junjoon ko yeneen yoo xam ni doon nañ ci waxtaan ak ci kilifa yi ngir mu jëm ci kër gi waaye moom looloo moo ko gàntal moom sëñ Muntaxa ne loolu nañ ko bàyyi te bàyyi leen la ca des nañ def lee tey bàyyi kon loolu rek doy wax dëgg yàlla ndax kuy liggéeyal kenn ba moom mu xam sa pas ba di lay yenni kon loolu doy na sëkk defe naa ci ak ci ak jublu ci ab liggéey kon nag ñun li ñu si war daal mooy ñu ngi jaajëfal ñëpp wax it nag ci sunu kàddu nga xam ne donte wut donte tamit kayewut tamit mboolem kuy wuyoo nga xam ne dara ci Serigne Touba ñu ngi lay ñaan nga dugal sa loxo ci Touba ci kanam ndax dama koy faral di wax ndaje mi ñuy mujj def gaar bu ndax wax naa ko fa bari na daayira yu leen fi jiitu bari na kuréel yu leen fi jiitu bari na mbooloo yu leen fi jiitu man personnellement gisaguma ku ko fi def wax dëgg yàlla ndax li ñu soxla mooy résultat te ñu ngi koy wane résultat nag mooy lépp nit ki moom bu fekkee ne danga koy jox ndax sëñ Cheikh Mbacke di gënaa ne nañ leen nañuy laaj nit ñi lu ñu am di ko def fu ñu xam loola nag moom Touba ci kanam ñi ngi gis na ñi ngi dox te ñi ngi wàccoog loola kon ñu koy yëgal murit yëpp ne ku képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan nga xam ne lu war la moom farata man ci sama gis-gis ne participation dugal sa loxo ci Touba ci kanam war war la ndax loo ci dugal mën ngay ne du génnaat fi nga bëgg mu dugg fi mooy tubaa te murit bu nekk lii yitteem ak yéenam mooy defar Touba. ci turu Serigne Abibou Mbacké moom Serigne Fallou ak Serigne Abdou laxaat moom sëriñ Abibou ak mbooleem membre yi Touba ca kanam ci lañuy ñuy kàddu fii ci kër sëriñ Touba ci teewaayu sëñ Abdou Khadir Niang mi nga xam ne moom lañu dénk bâtiment yi ñu nekk nii te li ñu doon indi ñu di ko teg ci loxoom muy ay jumtuwaay yoo xam ne eh, ginnaaw bi ñu xamee ne. Euh, bërëb yi soxla na ko euh, sëñ bi àggale ne ko àggale ko ci Touba ca kanam waa tubaa ja kanam waxtaan ci ba dëppoo ci moom lañ doon indi tay nii ñu ci sant yàlla bu baax a baax na ndax ni ñu ko xamee euh, Touba day dëkk boo xam ne du dëkk bu am ay hôtel ni ñu ko xamee ci yeneen dëkk yi tey dëkk bu mag boo xam ne jamono bu nekk nit ñaa ngi ñëw ak a dem kon bu amee wàccuwaay yu mel ne yii ñu nekk ni ci biir kër sëñ Touba gi mbooleem taalibe yi war nañ ci dugal seen loxo ci jàpp ci entretien bi ak kii li koy setal ak lay tax mu mu mu mën a ñoŋ ba mën a dalal gan yi nga xam ne gani sëriñ bi lañ ci biir loolu nag ci la Touba ca kanam yëkkatee jumtuwaay yi indi ko tey teg ko ci loxob sëñ Abdou Khadim mi nga xam ne moom la sëñ bi dénk saytu bâtiment bi mu toll ci ñaari machine à laver yu 20 kilos ak 10 euh, aspirateur fukki aspirateur yi nga xam ne ñooy aspiré aspiré poussière yi nekk ci moquette beeg euh, moquette yeeg yu ni ak luy tollook euh, juróom fukki balai ak juróom fukki raclette yooyu mooy jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñu indi woon tey Euh, ci teg ko nag euh, di ko leeral nii te teg ko ci bàkkub Touba ca kanam bi nga xam ne ñoo ko jëlee woon ci kàddu yi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma te mooy laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam yokku ca buñ ko defee fu ñu xam ba noppi wëlbatiku di ko saytu ci biir saytu boobu tamit euh, sëñ Abdou Khadir mi kenn la ci ñun bokk ci Touba ca kanam bokk ci ñi nga xam ne dañuy jàpp ci liggéey bi di ci soññee kon moom bu tegoo ci loxo mel ne ne tegu na ci loxo waa Touba ci wàllu saytu bi ci wet googu ci biir laaj lu ñu man def fu ñu xam googu moo tax Touba ca lépp loo xam ne da koy yëkkati def ko fu mu doon dana ko woon mbooleem waa Touba ca ko kenn ku ci masoon a joxe aw ñaar téeméer mu wóor na leen sa ñaar téeméer yi moo sabab loolee bu ko defee loolu day tax ñu ñu xam ne lépp lu lu ñuy yëngu wala ñu koy wax ci Touba ca kanam dañ koy def ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba mi ñuy liggéeyal di sant bu baax a baax nag mbooleem taalibe yépp ci seenu jàpp ci liggéey bi di leen ci gën a soññi ndax Touba ca kanam moom weer 1000 francs rek la ginnaaw bu ñu fi ñëwee ci ndigalul Serigne Abdoulahi Mbacke Serigne Abdou Lahat ak mbooleem waa Touba ci kanam ñëpp ngir liggéey bi nga xam ne nii bokk na ci liy jëmale Touba ci kanam ndax barab bii bokk na ci barab yi nga xam ne Serigne bi moo ko sancaloon boppam ndax yaakaar naa fi Serigne bi taalife woon xasida googu ñuy wax yaa rahmaan yaa rahim soriwut ak fii kon nag day mel ne ci li tax Serigne bi ñaanoon ci Matlabul Fawzayni eh, muy projet de société bu ci loolu rek la Touba Ca Kanam nekk euh, di xamle rek ne euh, bokk taalibe yëpp ak rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci tuubaa Ca Kanam ñi nekk ci réew mi rawatina waa diaspora bi kër sëñ Touba yi itam bokk na ci di di tax tuubaa jëm ci kanam ndax mboolem gan yi sëriñ bi am comme ni ko sëriñ Abdou Khadir waxee euh, ak ñëpp rek ci kër yi dañuy ñëw ngir dalloo fi te gan dafa am àq ci kamay seeti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gëm yàlla gëm yonent gëm bis penc na ngay teral sa gan te gan ñooñu nag ci barab yi dañ leen terale kon ñu ngi ci ñaax bokk taalibe yëpp te li gën a yomb rek mooy jaarale ko ci Touba Ca Kanam te mooy weer bu nekk taalibe bu nekk joxe ñaari téeméer eh, di wax rek ne sëriñ sëñ bi ñu ngi lay jottaloo ay kàddu ci sëriñ Basiiru mu jottal ñu ay kàddu ci Cheikh Mamadou Muntaxa di ko wax ne Touba Ca Kanam moom li liñ fi nekk rek mooy fas yéenee nekk ay taalibeem di wéyee ndigal rek lépp loo xam ne ni ak bëggam la daal muy muy suba muy ngoon muy naaj muy taw yëpp ñu ngi ci te fas yéene la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom waxul yonente bi sallallahu alayhi wa ne ko fa isa faraxta fanzab waaye wa ilaa rabbika farxab lépp loo noppi rek na ca sofaat la waaye na sa borom rek tax kon nag ñun lépp lu ñu noppi rek noppi nañ ca waaye sëriñ bi rek a tax ñuy def kon ñu ngi ñaan sëriñ bi gën fee yàgg te wér te mboolem naal yi nga xam ne nii mag ñi naaloon nañ ko mu àggale ko ba naal naale boppam te àggale ko suñu ànd ko moom di soññuwaat mbokki taalibe yëpp rek ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bii nga xam ne mooy Touba Ca te mooy laaj lu ñu am def ko fu ñu xam bu kenn gedd bu kenn xuloo bu kenn mer asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wajalilaayi maskani tubabat misrasmi abijaayi xayri manabat